téll téll faraj faraj xajal ma ma jàll ma daw gaaw bala bagage yu mucc ayib yi nga xam ne match baa nga fay tas dëkk baa ngi rajaxoo ndax gaa yi fi mu toll nii lépp jàmm lépp taw féex ci bagage yoo xam ne mucc na te it suñ place boobee nga xam ne daanaka dañu ko ubbi ngir mën a jotele ñi nga xam ne mënuñu woon a dugg ci biir garage bi kon ci bunt bi boo jógee fi nga xam ne mooy ndakaaru mi ngi ci sam dijoor boo jógee Thiès daanaka mi ngi sa côté càmmoñ foofee nga xam ne fi la taximaan yi gaare place baa ngoogu bokk ci bagage yi nga xam ne mboole seen jërul ñi koy lim lépp lu ngeen jëm ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu oto pièce détachée am nañ ko punu bu camion bi nga xam ne moo ci ëpp doole lépp loo xam ne xeetu punu la bu mag ak bu ndaw bu ngeen ñëwee ci suñu yi nga xam ne sant yu dëgër këcc kiic kiic loolee tamit am nañ ko punu tamit fàttewuñ ñi nga xam ne ñooy oto yu ndaw yi Peugeot ngeen jëwee lépp taw féex batterie original ñëpp dañ ko daan manqué léegi bu ngeen ñëwee stock ban ci am yéeme na batterie camion batterie oto bu ndaw bépp xeetu batterie bu mu mën di doon bu ngeen jokkook mook téléphone numéro yaa ngoogee bu ko defee lépp dana taw feex matériel yaa ngoogee lépp jëm na ci pièces détachées yi nga xam ne daanaka am nañ ko huile nag original bi foofee rek nga ko mën a amee ci ñun tay ba tay ba yi ndax huile bi daanaka dañ koo jëggaani ca Europe dégg jàmm huile cinq litres vingt litres ba ci ba ci gën a tuuti am nañ ko lépp loo xam ne daanaka originalité la bu ngeen ñëwee ci suñu magasin daanaka dana mët sëkk ci yéen lamp yoo xam ne tamit lamp yi xëy xëy la maanaam oto boo ko yoree façon lamp boo bëgg muy muy lépp lu mën di doon danañ ci teg bu ko defee lépp mën a taw féexe ci yow nga mën ko am tey ba tey bay ñoo leen di may xibaar yu am solo yi jërë ngeen jëf waaye tewu nag Angleterre ci ndimbalul ginnaaw sunu borom kii di Bellingham taxawaay bam ca am am na solo liggéey na liggéey boo xam ne dugal na ca bit ak aari kiin yëglekaay yi ah, fàttewul lool bu ñu jógee ci point sport dañuy randu dangu ndànk nag ah, ah, jéego dem ci stade yëglekaay bi nga xam ni bokk na ci yëglekaay njëkk ci milieu réew ci wàllu sport stade nag li mu ñëw mooy France ak Portugal bi nga xam ne ñu ngi sous bu ñu ko waxee nag mooy jàpp nañ ni match yi ñu am match yooyu dana métti waaye nag Cristiano Ronaldo jàmbaar la loole lépp xanaa war na cee mën a génn ndax dernier euroom moom la nekk di def nii ndax xam naan ne naa naa ni ñeent fukki at ak a ah, di football loolee dana métti ci moom France Belgique nag yëglikaay yëpp daanaka dañu nañ ko yaatal ah, Didier Deschamps mi nga xam ne nag moom nañu gisee tàggatu yi nga xam ne ma ngi koy def préparation lii di ah, série penalty yi la ñu gis ni moom lay mébét maanaam bu ñu demee ba ci tiiro bi bu ko defee ñu lijjanti affaire waaye ma yaakaar ni comme am na Kylian Mbappé ci biir terrain bi war naa mën a góor góorlu yi goneem ñu daal di dunkum mën a am victoire bu mucc ayib ci digganteeg ànd ak De Bruyne yëglekaay bii di turbine sport bu Bougane Gueye Dany moom Bira Sène mi nga xam ne daa jël askan wi ah, teg leen ci euh, tali bi maanaam mettre leen mettre leen en danger lu tax mu wax loolu mooy population bi nga xam ni làmb ji day dem ba ay vingt deux heures vingt trois heures bu ko defee euh, lëndëm gi ni karus coow li bari agresseurs yeeg ñoom ñëpp ci biir yëglekaay bi nag loolee la koy moytuloo état bi na jël ay décision ci li mu xam ne bu ko defee lépp loo xam ne mën naa nekk ay kaaraange làmb ji di teel a tas dëbb ren mu nekk ci yëglekaay bii di record yëglekaay mu ànd nag kii nga xam ni ah, moo nekk Kylian Mbappé loole di ab revanche bu ñuy préparé ah, maanaam match bu ñuy tëggaat match boobee nag ñu bàyyi ko xel incha allahu danañ ci dikk ci